Euh, asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, man la madame Néné Ndiaye euh, maîtresse sage-femme centre de santé de Koungheul ñu ñoo fi ñëwaat comme ni ñu daan defee rek bii baa ñu ngi quatrième édition octobre rose ñëpp xam na ne mois d' octobre dañ ko dédié pour lutter contre le cancer du col de l'utérus mais surtout cancer du sein ndax ñëpp xam na ne cancer du sein mooy cancer bi gën a mën a sonal jigéen ñi sa moo leen di gën a yóbbu seen bakkan yi tamit. Mm-hmm. loolu moo waral tamit ñu toog fi ñun équipe centre santé équipe district bi yëpp ñu toog fii lëkkaloo ak euh, coordinatrice Awa Sarr Fatou Seye Ndiaye euh, Matou madame Seck euh, ñoo ñëpp ñu ngi si biir ñu lëkkaloo ñoo pour lu lutter contre le cancer du sein ak cancer du col de l'utérus fas yéene organiser journée le 14 muy journée de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus mm-hmm. dina am ay sages-femmes yu xarañ district bi yëpp ñu ngi fi naam ay gynécologue timit yi nga xam ne fas yéene na ñëw timit ci euh, jour bi ba pare timit euh, dinañ prévoir pour topp femmes yi gunge leen pour mammographie bi te mm-hmm. écho mammaire dina disponible le même jour jigéen ñi nga xam ne am war nañoo def mammographie timit dinañ leen gunge paasal leen yóbbu leen sa duñ fay dara duñ fay mamo bi timit niveau Kaffrine mm-hmm. donc xam naa ne ren moom loolu lañ indiwaat ba pare timit am nañ journée de don de sang ñëpp xam ne ne tamit sans tamit dafa nekk loo xam ne activité bu ñëw danga nga si war a boole. <laughs> boobu ñu ngi ko fas yéene def di la 13 octobre. ñu def don de sang woo si ñëpp nag ñu génn ñu maye deret jigéen góor ñëpp ñu génn maye si deret yi ndax xam na ni sauver des vies c'est donner du sang. ñu ngi koy démarrer à 8 heures à partir de 8 dina fekk box yëpp dina tijji sage-femme yëpp dina nekk sur place. liste nag duñ ko def parce que liste gis nañ ne day indi ay problème chaque année. Mhm. donc dañuy def ay numéro ku ñëw si biti da nga fa fekk ñi xarañ ñi fa toog ñoo xam ne foofu la ñu nekk boo ñëwee rek buñ tijjee porte bi dañ lay jox wax numéro numéro d'ordre la ñuy duggee. organisation moom dina am foofu ba kenn du ñëw ne yàgg naa fi loolu la ne bañ yàgg naa fi ba ma ñëwee ba léegi jëlul ma wala jël nañ ñeneen jëlul ñeneen. ak foo munta jógee si biir Koungheul foo munta jógee boo ñëwee tamit dina la jox numéro d'ordre la ñuy duggee du am farfarloo mm-hmm. du am dara organisation bi dina kii nag gaa yaa ngi si buntu bët pour organiser waa comme ni nga ko faral daan defee rek danoo am partenaire boo xam ne suñ collaborateur la ñuy wax muy waa laboratoire agenda Famma depuis journée bi ba léegi ñoo ñoo ñuy gunge ci wàll matériel et tout donc ba tey tamit ñu leen ci woo di leen ci xaar ba tey en collaboration ak ñooñu la Euh, tournée bi nag euh, dañ koy defal ah, dañ ci am ay marrainage ñu ngi si marraine madame euh, Ndeye Binta. Mhm. madame la maire. Mhm. ñu ngi ko marraine si na ñëpp xam na ne tamit borom ku jigéen la pour mu jàpp ci sensibilisation bu baax a baax. Mhm. waaye tamit ñu ngi si marraine tamit suñu sœur tamit madame Camara Zeyna. Zeyna Mbaye donc moom tamit euh, ñu ngi ko si xaar bu baax a baax si journée bi mm-hmm. gis na ne moom tamit femme battante la tamit di si mbirum dépistage yëpp sensibilisation dina si mën a jàpp bu baax a baax mm-hmm. moo tax ñu mare na ko jigéen ñi pour sensibilisation bi gën a mën a jaar yoon jigéen ñi xam ne journée bi seen journée la ñoo ko moom moo tax otuñu ñu parrain marraine lan marraine lan ot na ñëpp euh, ñëw génn dépisté wu euh, octobre dañ koy jël dédié ko mois bu mais day continuer bañ nañ ba dañ koo boolee si routine bi routinisation bi lañ ko boolee mhm. consultation yi jigéen ñi sage-femme yi ba tey ñu ngi koy def am na jigéen ñoo xam ne bu ñëwee dañ leen koy proposer defal leen ko dañ koo boole léegi si biir liggéey bi si la bokk mhm. nekk octobre bi rek muy dépistage cancer du col ak dépistage cancer du sein cancer du sein nag dinañ jàngal femme yi nan la ni saytoo seeni ween yi mhm. mooy autopalpation des seins bu leen ko jàngalee wan leen heure gisee fuur ba pare naka lañ koy saytoo su boobaa ñoom buñ ci gisee dara loo xam ne ogg doñu boo xam ne fi leen di wax mu ngi fa su boobaa dañuy daw noonu tamit gën a yombal mbir mi ñëw ba si hôpital bi wax ñu ko pour duñ si am euh, du fekk mu trop tard rendez-vous la 14 incha allah à 8 heures au centre de santé de Koungheul. décret don de santé nit na ñëpp génn góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp nañ génn ñëw képp ku mën a may deret rek na génn may deret parce que donner du sang c'est sauver des vies